internationale. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. internet xel ci sene info point info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaar tey samedi di 18 juin 2022 tey nag dañ koy yemale ci xibaaru euh, biir réew mi. Ousmane Sonko démb ci guddi def na ab déclaration ci page Facebook am moom nag dikkaat na si mbir mi nga xam ne moom moo xew euh, démb euh, te sax ñetti nit kon jot see ñàkk seen bakkan fii ci Dakar benn ca Bignona benn ak jigéen Ziguinchor benn moom nag nee na ñetti nit yooyu faatu daal kenn waralu ko ku euh, njiitu réew mi Macky Sall mu ne daal lépp responsabilité am la moom njiitu réew mi nag nee na sax kii di président Macky Sall ab président assassin la maanaam maanaam reykatu nit la mu ne gannaaw bi nga xamee ne kon moom Ousmane Sonko may wax ba léegi kii di njiitu réew mi faat na lu toll euh, si quatorze personnes euh, ci mars euh, deux mille vingt et un démb yokkaat na si yeneen ñett moom nag nee na loolu daal kenn du ko duñ ko seetaanee noonu. ba léegi Ousmane Sonko euh, nee na nag euh, kii di njiitu réew mi Macky Sall ñu ngi xaar ci moom euh, mu libéré ñi nga xam ne kon muy ay leader opposition yi yorat na Yewwi Askan Wi ak it ay manifestant yoo xam ne dañ leen jàppoon ci leader ya ku ci mel ni Déthié Fall wante itam Mame jaara Fam Ahmed Aïdara Amadou Ba Euh, ak daal yeneen responsable ak militant yoo xam ne kon teg nañ leen loxo mu ne daal euh, fi mu nekk nii kon ñu ngi xaar ci njiitu réew mi mu libéré leen ci loo xam ne du yàgg wala buñ leen libéré wul kon dinañ dem ñoom libéré ji leen. ci ñaar nit yi nga xam ne nag kon faat nañ leen fële ca euh, Bignona ak Ziguinchor moom Ousmane Sonko ba léegi daal. mu ngi teg ay tuuma ci njiitu réew mi nee na Macky Sall moom moo joxe dogal ñu tiire ay bal réel foofale daal ca Casamance ngir ñooñu bu ñu faatoo daal coow euh, mën faa am ñu teg ko ci ndoddal moom moomu le di Ousmane Sonko moom nag nee na kii di Macky Sall considéré wul waa Ziguinchor ndax nee na mënul comprendre lu tax fii ci Dakar nga xam ne fii la manifestation bi gën a wulee kenn utiliser wu fi ay bal réel foofale ca Ziguinchor ñu fay utiliser al ay bal réel moom Ousmane Sonko nag euh, nee na li nga xam ne daal xew na démb euh, daal day firndeel ne kon ñoom euh, taxaw nañu temm ngir njiitu réew mi Macky sàll bañ am ñetteelu mandat fii ci Sénégal te nee na loolu ab tàmbali la rek nee na duñ si mos a dellu gannaaw. beneen xibaar ñeel manifestation yu démb yi mooy ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna nga xam ne démb bokk na euh, ci euh, manifestation ba nga xam ne dañ ko tere woon fële ca Ziguinchor moom nag bésub tey bi euh, police bu Ziguinchor dañ kaa teg loxo moom sax moo ko xam xamle ci ab texte boo xam ne publié na ko mu ne moom nag gannaaw bi nga xamee ne mu ngi demoon di seeti ay ñoo xam ne daal dañ leen tegoon loxo démb ci manifestation bi ci lañ ko moom tamit jàpp bu fekkee nag kii di réew mi njiitu Macky Sall moom it àdduna jëmale ci mbir mi ci ay kàddoom yoo xam ne journal L'As ñoom ñoo ko jottali nee nañ daal moom nee na du ñu bàyyi ab groupe nit boo xam ne sax ñu tuuti lañ bëgg a yëngal li nga xam ne moom mooy dëkk bi moom nag nee na Sénégal réew mu ñu respecté la te it Euh, réew moo xam ne daal euh, respect la dafiy dox euh, wante it réew moo xam ne dañuy respecté droit nit ku nekk moom nag nee na comme moom comme moom moo war a sàmm lii di kaaraange ak it moomeelu nit ñi mu ne nag kon duñu seetaan kenn muy daal yëngal li nga xam ne moom mooy réew mi nee na nag li nga xam ne moo fi xewoon mars deux mille vingt duñu seetaan mu fi amati ndax nee na ñu seetaan ay nit daal bëgg a xoqatal réew mi daal bug ko euh, yàq di yàqit li nga xam ne moom mooy moo meelu nit ñi nee na loolu euh, du am ñu koy seetaan moom jiitu réew mi dañ koy jeexal xibaar sport international sénégalais bii di Sadio Mané nag fi mu nekk nii demam Bayern daanaka euh, sotti na bu ñu sukkandikoo sax suñu naataango yu journal euh, tàggat ñu ne moom nag fi mu nekk nii sax li nga xam ne moom mooy euh, visite médical bi nga xam ne jour bu nekk da ko war a def bu buggee dem ci club bu bees ñu ne moom mardi bi dina ko sax amal foofu foofule ca Bayern ba léegi ñu ngi xamle ne kon euh, club bii di Bayern mu ngi waaj a ab contrat bu trois ans euh, boo xam ne dina toll ci trente cinq millions euh, d'euros ak itam cinq millions yoo xam ne bonis lay doon pour suñu gaynde googu di Sadio Mané lii la ñu loon tey ci ay xibaar di rafetlu seen teewlu di leen jox dikk daje altine jaa ngeen jëf.